ci ci njalbeen ay dëkk yu tuuti ñoo ko créé woon parce que temps bu njëkk bi bu ñu leen waxee Interpol nu mu soqee ko lu xaw a doy waar la ab benn bandi bu mag la woon bu mag a mag a mag temps yu njëkk yi en 1923 kooku comme dafa bokkoon ci ay gang moom bokkoon na ci ñi tax ba ñu teg Interpol te moom lañ ko joxoon parce que comme bandi la woon donc xamoon na nu ñuy yan technique la ñuy teg pour ñu mën a jàpp ay bandi noonu la Interpol soqee ko mu di dem di dem di dem di dem ba yàlla def ba tey fi may wax yéen ni mu am téeméer ak juróom-ñeent ak juróomi dëkk ci àdduna bi tey ñoom ñoo soqi ñoo ñoo nekk ci Interpol. tey bu ngeen xoolee taabal bi ñu fi toog rek ngeen xam ne Interpol du police ko moom mais ñëppoo ko moom képp koo xam ne ki yaa ngi xeex pour en tout cas lu yàq réew. ak lu koy gën a defar lu tax àdduna bi di gën di encore am sécurité suñu dëkk di gën a am sécurité moo war a tey ñu fi toog ñëppoo ngi fi gis ngeen kii général Daouda Diop la ci ci kàngaam yu mag la ci biir gendarmerie ku ci am doole la te yàgg na liggéey tamit ci affaire criminalité parce que xëy na ci am na ci yéen ñoo xam ne ñi ay xale la ñu woon mais ñun ñi nga xam ne ñi daanaka am nañu ay at tuuti yàgg nañu yàgg naa xam moom mooy kan parce que liggéey nañu bi ñu liggéey léegi war na mot presque ñaar fukki at yaakaar naa ak juróom-ñaar 27 ans temps boobu bi ngeen di dégg Alex Ino ñun ñii ñoo ci nekkoon maak moom mii nii ñu nekk ay xale yu ndaw temps ba te ñu toll fii nii colonel Kandji mii douane la nekk douane la nekk te képp ku xam duwaan ci FDS la bokk kuy xeex lu yàq réew la parce que léegi léegi ci ñu ngi leen di woon fii ci ay garab. te ñoom gis nañ ci ay jéego yu rëy lañ ciy def ak ak ay drogue yu mel noonu noonu kii avocat général la Ablaye Ba nekkoon procureur boo xam ne ñëpp xam ko Ablaye mi tey jii nii mu ngi parquet général te parquet général daanaka bu ngeen déggee mandat d'arrêt yi war a kii sànni ci àdduna bi ci loxo procureur général lay jaar mu wàcc ci directeur police judiciaire directeur police judiciaire mu mu. dugal ko ci toile bi nga xam ne fépp foo mënta jaar ci àdduna muy ci aéroport yi muy ci poste fronti euh, frontière yi fépp foo ci jaar il suffit que nga joxe sa carte d'identité nga joxe sa passeport bu fekkee ne ñu ngi la doon wut rek machine bi ci boppam comme leen waxee nii automatiquement woon ne kii nit ku ñu doon wër la machine yëpp dañuy taxaw gars xam ne yow mi amoon nga njombe woo def gars yi jàpp la